am na kayit goo xam ne dafa tudd dafa tudd ci tubaab limineer mooy njalbeenu lépp ci li muy wax day daldi di taaj wax ji ci nin ko soppee nin ko gisee nin ko bëggee li leen tax a jóg yéen ñëpp te tax ñoo jóg ñu tam ba taw yow toog fii xam ngeen ko bu baax ñu ne lan mu ne ah borom fas yi dajaloo nañu ñi nga xam ne dañuy yar fas itam dajaloo ñiy yor fas dajaloo ñiy war dajaloo ñiy seetaan dajaloo mbooloo mépp bokk benn kàddu bokk fu ñu jëm looloo tax tey jii bi ñu wootee macha allah mu mat sëkk ñu ne dañu gis loo xam ne doy na waar bokkoon nañu dajaloo ministre des sports jox ñu ndaje ñu di ko tuddee audience ñu dem fa waxtaan ak moom dama ne ko njëlbeenu lépp gande buy ñëw sa kër gumba la xamu fa dara bu toogee nag buur la war a doon dañ ko war a ganale bu baax a baax a baax bu ko defee buy dem mu sëb géwél taggal ma ne ko duggin wi neex na toog bi nag ah dégg-dégg am na ci dégg-déggit amaat na ci bu ñu sañoon lañu fay jëlee ba tax ñu di ko tagg mooy mu wax li nga xam ne moom la ñëpp sàkku woon mooy ñu soppi mbir yi ah na mu ko waxee daal day saf xiini miini waaye ñu muñ ko jox ko cëru jawriñ gi nga xam ne moo taxoon mu toog ba jóg ñun di ko fekki tontu wu ñu tontu goo xam ne bëgg ne ko taxawal rek tey nga wax ñu lii tey nga wax ñu li déedéet dañ ko bàyyi xel ak xalaatam mbir mi di dox ba ñu xëy wax ñu ne ah ndaxam de am na lu ñu tuddee ci wolof ab dogal àtte ñu koy wax arrêté bu ne taxawal nañu mbir mi mu doy waar lool ndax loolu témbool woon ak li nga xam ne moom lu ñu doon dox ñu ne dañ ci ànd ak yiiw yiw gu mat sëkk ngir réew mi ñu ne ngeen lan ma ne leen buñ ciy jóg ndax loolu dañ xëy na day mel ni dañu yàq ma yàq guy defar ndax alquran moo ne asan takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun ma tekki leen baati ci ay wolof mu ne lan amaana ngeen di sib dogal ci mbir mooy suñu dogal bi ñuy dogal ñun bëgg yëf yi soppiku liy jóge fi bañ li nga xam ne dogal nañ ko amaana ngeen di sib dogal ci mbir te fekk mooy la gën di ñeel leen ci lu biir li ñuy def ku mu xaw metti mbaa mu kaw naqari nañu xam ne dañ koy def ngir defar moo tax ma ne amaan ngeen di su dogal ci mbir te fekk mooy la gën di ñeel leen ci lu biir ma ne noonu net li ngeen di bëgg mbir daw jëm ca mu neex ci xool te mu jëgëri cu am ca kon yàlla buur bi moo ko xam yéen xamu leen moo yaatal te bareel ay yërmandeem te yëgu leen man noonu lay tàmbalee wax ji bu ko defee lii ñu ne dañ ko tuddee limineer ah ki koy jàng bu ko jàngee mu jàng ko ci làmmiñu france boobaa yéen danañ leen ko firil ci wolof bu ko defee wax ji dina farankulaay bu baax ndax dinañu gis lu tax ñuy bañ lu tax ñuy jóg lu tax ñu tax te am na loo xam ne moom lay tëjee suma wax ji hmm? yàgg ngeen ma dégg fii ci suñu réew mi yëkkati ma yombul waaye nag jóg dafa jot jóg dafa jot loolu tax ma jóg te jóg bi may jóg mu ne ama ne dama bëgg ñëpp xam ko dégg ko bu leer ñépp jógu defar la jëm fu baax fu gën ci suñu réew ba ñu xaw saf xaw nuru ñi nga xam ne fas am na njariñ seen réew lool lool lool xam nañu lu xew bitim réew fu ne dem nañ fa fu ne dem nañ fa dañoo doppe rek fu ne dem nañ fa rawante bu Arabie Saoudite sax maa fa seetaan bokk ak toog hippodrome bu bu Jidda ak ki nga xam ne mooy seen président keroog jarbaatam maa ko yóbbu mu ñibbi mu ne ma moom demul dafay jël pour dem Riyad direct man maa ko yóbbu Jidda ñi ci des ñëpp xam nañ leen gannaaw loolu itam gëstu ñu gëstu ak fi ñu jaar ci mbiru xam-xam ak mbiru njàngale mu koy am na foo xam ne ah suñu tur jiitan fa suñu tool te tur dafa war a jiitu tool fii bu ñu xamee ne toolu bàyyi diw la di nga xam ne di fa dagg garab wala déet léegi nag ma ne li nga xam ne bëgg naa ñu xam ko mooy luy defar réew mi ñu tax a jóg luy defar Sénégal moo ñu tax a jóg lu fi indi alal luy tax yëf yi naat luy tax nit ñi seen bopp mu ne amale ah, dund Sénégal neex ci ñoom loolu dinaa ko wax ndax lenn mu ne amale ah, ko tey jii am na foo xam ne jaar-jaar boo xam ne yàlla suñu borom bi may na ma ko ma jàngal tey ñi nga xam ne ñoo nekk ci boppu réew mi walla boobu ma bokk ci professeur yi leen jàngal président Macky bokkoon na ci suma classe te fu ma gis fàttali ko fu ma gis fàttali ko wax bu rafet bi may tappal médaille grand croix de l'ordre du mérite dafa ñëw ne ma tey de élève bi mooy décorer maître bi loolu duma ko fàtte kon nu mu mënti demee loolu sàkk la bu rëy rëy rëy duñu def lu koy yàqal bu ñu dajaloo tey di defar dañuy defar ndax mu baax woyof ci moom neex ba dee tey kii nga xam ne mooy njiital jawriñ yi premier ministre moom itam jàngal naa ko Amadou Ba tey kii nga xam ne mooy kilifteefu kuréelam nga ñu ko wax directeur de cabinet Daouda moom jàngal naa ko tey Amadou Moustapha Ba miy jiite suñu koppar yi moom itam jàngal naa ko kon fa tabarakallah am na ñoo xam ne mën nañu wax ak ñoom te xam nañ mun la déggee ci wax dinañ xam ne lu baax la ñuy dox li gën ci réew mi la ñuy dox su ma wax foofu laa ko donc si gàttal rek ah, ñu tënk wax ji ndax comme ça waxtaan bi gën a gaaw kon ñu dem fi ñu koy jeexale fi ñu ko jeexale woon si nasaraan ñu tàmbale ko foofu si wolof voilà euh, course hippique du ay fas rek ñuy dajale taxawal leen si benn si benn rëdd wax leen pour ñu daw bu bu ñu eggee ñu jox leen ku nekk xaalis bi nga bi nga bi ñu la jagleel course hippique du loolu course hippique dafa nekk lu gën a rëy loolu dafa nekk tey ay entreprise maanaam dafa dafa am koom-koom bu diis bu nekk si ginnaaw dafa nekk ay entreprise mais dafa nekk ay chantier tamit dafa nekk ay chantier parce que yoon moo ñu jagleel ñun depuis 1996 benn xaalis boo xam ne dafay jóge si LONASE moom la tubaab yoo wax un prélèvement de 2 pour cent sur les recettes brutes maanaam lépp li LONASE di liggéey ci PMU ñun tey yoon may nañu pour ñu taxaw jéem see am 2 pour cent maanaam téeméer bu nekk ñu am si ñaar xaalis boobu nag ba léegi ba léegi moo ñu xaw a indil problème si course parce que fu ñu war a jotee 500 euh, millions million on juróomi téeméeru millions ah tey fukk ak juróom kese. lañ siy jot donc ngeen xool différence boobu nu mu mel ak ni mu ñuy gaañee ñun ñi xam ne ñoo nekk si bi beneen chantier bi mooy chantier infrastructure maanaam fi ñuy dawale fas yi boobu ba léegi ñu ngi ñu ngi sàkku ñu ngi sàkku si monsieur le président de la république te je pense que dégg nañu bu baax te xam naa ne jóg na si pour que mu tabaxal ñu benn hippodrome national euh, du ma egg si projet bi fu mu toll tey mais je sais que am na ay jéego yu am solo yoo xam ne dox nañ ko si te incha allah dana sotti euh, beneen chantier bi nag mooy euh, maanaam ñu dekkalaat yeneen hippodrome yi nga xam ne ñu ngi si biir dëkk bi ay Louga ay enfin mooy dëkk yi nekk si fi ñu daan dawale te dawalatuñ fa ndax ñàkk hippodrome de de de de bonne ah, loolu rek moo ñuy mooy le deuxième chantier ah si wàllu hippodrome yi foog ñu defaraat yi nekk si biir dëkk bi déjà déjà am na loo xam ne am na solo mi ngi am suñu benn camarade bu dëkk Thiès Ibrahima Diop mi ngi dekkal mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi dundal li mu tuddee moom ah dekkal course course mbapat maanaam course yi mu daan am temps yu jëkk yi maanaam dëkk bu nekk di dawal moom moo si nekk tey di si xar tànk tubéyam di si sonn lool ñu ngi ko si jaajëfal ah di ko félicité je ne sais pas si ndax ñu ñëw na tey mais en laal cas daal en notre nom ñun ñëpp ah, Ibrahima Diop ñu ngi lay félicité di la encouragé si li nga nekk euh, beneen chantier bi mooy le chantier de la formation au cheval maanaam ñiy liggéey si mbirum fas muy entraîneur muy jockey muy kuy wallet tànk mooy kuy defar teg mooy kuy defar bridon loolu yëpp dafa bokk si formation boo xam ne état bi war na ko mën a jël en charge jàppale ñu beneen chantier bi mooy l' génétique maanaam tey état bi dafay jëlee ay étalons bitim réew indi leen dugal leen si centre yi centre yoo xam ne état yaa ko moom propriétaire tamit ñoom tamit dem jënd seen étalon indi pour mën a améliorer race locale bi loolu tamit il faut que état bi jàppale ñu si ba pare définir benn programme boo xam ne ñun dinañ si mën a gis suñu bopp. Euh, chantier de la bonne gouvernance de la reddition des comptes et de l'orthodoxie financière et comptable booy euh, jëfandikoo xaalisu xaalisu xaalisu réew mi xaalisu askan bi yoon daf lay tënk daf lay tënk si ay euh, ay anam yoo xam ne doo si mën a génn. moom la tubaab di wax orthodoxie maanaam xaalisu xaalisu askan bi euh, dafa am ay charte dafa am ay charte yuñ ko yuñ fu muy tegoo foo xam ne yow mi koy jëfandikoo doo si mën a génn euh, li ñuy wax bonne gouvernance maanaam yorin bu sell yorin bu sell nag balaa nga koy def balaa nga cee egg ni nga jëfandikoo nga mën see rendre compte maanaam nga mën a oo mbooloo mi wala oo ki la dënk ne xaalis bi mu dénkoon fii ak fii ak fii laa ko jaaree si anam anam yi laa ko laa ko jëfandikoo loolu tamit c'est la la bon gouvernance euh, am na loo xam ne ñu ñëpp ñoo si jógandoo waxandoo ko jëfandoo ko doxandoo ko mooy tey course fi mu toll tey yorin biñ ko yor ñun gisatuñ si suñu bopp gisatuñ si suñu bopp parce que xamuñu fu mu jëm am na ñoo xam ne tey li ñuy dépensé par mois weer bu nekk si dundu fas kese dem na ba dépassé xëy na fukk ak juróomi million si seen écurie yi loolu dis na disaay boo xam ne course delloowul xaalis boobu propriétaire yi delloowul xaalis propriétaire ba pare course yi niñ ko organisé ak ni muy doxee ak fi ñu ko bëgg a yóbbu ak fi ñu ko bëgg a parce que ki fa nekk tey xalaatam du jaagal du jaagale course si yoon moo tax ñun ñëpp ñu jógandoo jógandoo waxandoo si benn kàddu xàccandoo doogandoo ne professeur Sakhir Thiam nga xam ne nii moo toog sama wet moom lañu bëggoon ministère des sports dénk ko course yi moom la tubaab di wax c'est le plus illustre d'entre nous maanaam jaar-jaaram si wàllu àdduna jaar-jaaram si wàllu jàngale jaar-jaaram si wàllu xam-xam macha allah may na ko tey may na ko tey mu war a mën a jiite course hippique Sénégal yàlla may na ko xaalisu course soxlaw ko du ko soxla tey du ko soxla suba te mosu ko soxla sax moo tax ñu ñëpp ñu décidé ne suñu choix porté wu na si moom tey nag comme ni mu ko waxee si si si si si ubbite bi am na leen lu xew si diggante bi am na benn arrêté boo xam ne ministère génn na ko enfin ministère mais en tout cas jóge ba génn am na benn comité benn CNG bu ñu mettre en place boo xam ne ñun ñii ñëpp toog fii tey gisuñu si suñu bopp te fas yéeneen suñu baat egg fu mu war egg c'est-à-dire jusqu'au plus haut sommet de l'État responsabilité boobu la am ñun tey parce que xaalis bi nekk ci course yi du sama xaalis du xaalisu professeur du xaalisu Papa Ndiaye May Anta du xaalisu Modou Ndiaye Diop xaalisu askanu Sénégal la du ñu may kenn laa wax mu di ko jëfandikoo ci naka su dul noonu